Euh, salaamaaleykum mbokki jot na média TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay fépp fa ngeen mënti nekk ci réew mi ñoo ngi leen di nuyu. tey ñu ngi nii euh, Touba tey ku ne xam na ne dëkk bi wala àddina wërngel këpp ñoo ngi màggal bés bu tedd bii di 18 safar bésu Serigne Touba bi. donc tey loolu wara ñu ñëw fii ci Paaleen kër sëñ Cheikh Khadim Fall ci waañ bi pour teg degtal leen li nga xamante ne moo fi xew depuis lors. donc daanaka depuis ñetti fan ñëpp a ngi Touba lépp fii lay xewee côté waaj bi nga xam ne dafa am solo lool sax ci lu jëm si wàllu màggal gi donc tey dañoo ñëw pour dégtal leen ngeen xam organisation bi nan la ak waañ bi lan moo waral ñëpp naan waa paaleen wala waañu paaleen fu histoire bi jógee dinañ ci ñëw ak yéen incha allah ci ci biir waxtaan bi. comme niñ leen ko doon waxee léegi ci introduction bi ñoo ngi nii paaleen ci waañu sëñ Cheikh Khadim Fall donc tey ñu ngi toog ki nga xam ne dafa bokk ci jëwriñu waañ bi. moom moo ñu dalal léegi dañ koy bàyyi mu présenté wu. salaamaaleykum mbokk mi. Jotna TV. ñu leen doon di ziar di leen doon li bëggee ci màggal 2022 bi di leen dalal di wax jaajëf di leen wax euh, salaamaaleykum wa rahmatulah waaw fii nag mooy waa ñu Sëñ Cheikh Khadim Fall. balaa ngay wax ci waañ bi dañuy wax tur bi naka la ba noppi. maa ngi tudd Mouhamed dara Seck. Mhm. nekk bokk ci daayira Sicap bokk ci bokk ci jëwriñu waañ bi. Mhm. waañ bi nag dafa bëree jëwriñ. Mhm. jëwriñ mag bi nag mu tudd Malick mooy saytu lépp lu dem ci waañ bi ci ndigalu ci ndigalu suñu Cheikh Khadim Fall donc mooy saytu lépp nekk ci waañ bi daal di partager liggéey bi demee noonu. d'accord euh, kër gi borom kër gi moom moo tudd sëñ Cheikh Khadim Fall. yéen ci moom ngeen wéeru d' accord waañ bi nan la nan la sooboo. waaw xam nga ñun bi ñu dalee màggal fii def na léegi daanaka vingt neuf ans depuis 1993 dañ commencé di màggal fii ñu fi daan màggal nag dañ daan def comme ñëpp ñëw nekk gan toog ñu ñuy berneel ñu daal di dem nag xoolaat suñu bopp xam ne màggal du ñëw toog rek toog di lekk rek naan laaj dafa laaj liggéey surtout ci nag waa ñu Baye Fall nag dëkk Baye di Palais te suñ Cheikh Khadim Fall moom nga xam ni doomu suñ Khadim Fall la moom suñ a faal di troisième xalifu Cheikh Ibrahima Fall donc surtout direct maam Cheikh Ibrahima Fall di directam direct donc donc noonu lañ commencé laxasaayu nag organisé wu mais mhm. léegi ñuy tàmbalee ci di defar bisaab

jënd lépp lu ci war tamit indi ceeb indi commencé du doxee noonu topp. da ngeen da ngeen jotoon ndigal wala seen seen seen kiiw bopp la. ñoo xaar ba jot ndigal nag sëñ bi waxtaan ak sëñ bi ko laaj ci ndigal ne ko buñ bëggoon nag di jàpp ci màggal bi ndax xam nañ màggal moom euh, waaru ñëpp la du rek ñoo toog bi ñu lay berne yëpp waaye bokk na ci. te comme day bari ay gan ñu tam ñu jóg ne kon ñu ñoo war a toppatoo gan yi ba sëñ bi te comme moom dafa jaboote. boo xoolee ñetti kër yëpp moom lañ ciy toppatoo ak ñeneen ñoo xam ñu nekk yeneen dal ñu daal di comme organisé wu nag léegi nag dañ ñëw nag fekk fi ay daayira euh, ñun ñu ngi toll nag daalee Sicap Sicap Liberté de lañ dëkk euh, mu am beneen daayiram bu tudd Xitma euh, mu am beneen daayiram bu tudd Xitmatul Xadim bu mm. nekk parcelle boo xam moo ko sanc parcelle am yeneen daayira jóge Thiès mm. waaw Xitmatul Xadim tamit jóge Thiès am na yu jóge Mbour Ndengeleer jógee fu nekk. ñooñu fii ci kër gi la ñu nekk. léegi ñun ñëpp nag dañuy def dañuy dañuy séddoo waañ bi. Mhm. Euh, ñun ñuy ñëw daanaka ci ëpp ñu ngi ñëw veyu màggal la ñuy egg si fii donc yor waañu bésu màggal bi ak euh, ci ëllëg si. Mhm. waa Thiès yi ak waa Parcelles yi. waa Nengeleen ñoom ñooy yor waa Mbour daanaka ñaari fan yi jiitu laata màggal bi. maanaam si firnde comme màggal tey la jeudi. mardi lundi ak mardi. ñoo fi nekk. waaw waa Mbour. waa Mbour waa Ndingler waa Parcelles waa Thiès ñoo fi nekk ñu toppatoo gan yi ñun nag bu ñu ñëwee ci veille bi ñu ngi yegg si démb ci mercredi bi. Mhm. ñu daal di commencé tàmbali. toppatoo rek léegi nag ñu dañuy ñëw jàppale ñu tamit gis nga ñu ko organisé soxna yi ci am ñoo am ci dagg bi lañ nekkoon. Mhm. dagg soble yeeg. Mhm. macédoine rek lépp lu jëm ci wàllu togg beeg yooyu. Mhm. ñenn ñi nekk bi lañu nekkoon ci suba. Mhm. Euh, waa dëkk bi ñoom daanaka seen kii pa jàll na. donc waa añ bi ñoo des ñi nga xam ne ñooy toppatoo reer ñoom it commencé nañ dagg bi ñoom it di toppatoo euh, li jëm ci niche yi yeeg ak yooyu donc noonu lañ ko organisé. nga xam ne du du du du du du waa Sicap parce que ñun ñëpp a jaxasoo. waaye dafa rek ku ci nekk rek da ngaan euh, jox naa la nangami lim ci ñi nekk ci ndékki bi jox naa la nangami lim ci añ bi ak ñii ci reer bi ak ñi nga xam ñooy ñooy séddale ndax bu ñu toggee ba pare am na ñoo xam tamit bu ñu yekkee ñooy séddale pour yi nekk ci biir kër gi ak lañ ko noonu lañ ko séddale noonu lañ séddalee waaj léegi li jëm d'accord léegi li jëm ci wàllu maanaam li jëm ci lekk gi daayira yi ñooy cotiser andi jënd andi wala bu ñuy dañuy cotiser ñëw ba fii toog ku ne andi sa xaalis ngeen jënd wala nu muy demee waaw xam nga euh, daayira bu nekk am na nu muy doxee bu dee ñun waa SICAP. dañuy dañuy dañuy am suñu ay sas yu ñuy sasoo. ak tamit ñoo xam ni suñu am nañu suñu ay mbokk taal bi yoo xam ne ñu ngi bitim réew ñoom ñu ngi jàpp ci màggal bi. donc bu ñu demee li nga xam ne moom lañ defoon màggal daaw dañ koy teg ñu ne màggal déwén war nañoo évoluer. su boobaa dañuy teg lépp li nga xam ne moom lañ defoon. ci asaar. ak ci li ñu gisoon ci loo xam ni xawoon na xajam. voilà sooxe woon na ñu ne donc lii faw ñu corriger ko ci boobaa nag dañuy sasoo ni nga xam ni. Euh, màggal déwén noonu la war a demee léegi nag dañuy cotiser waaye en dehors de cotisation yi am na ñoo xam tamit dañuy di sant sa seen sasu bopp seen digganteeg bi ak seen digganteeg sëñ Tuubaa ñi xam ni moo war a màggal. mais yéen yéen ci biir daayira bi doo leen cotiser doo leen sas kenn aussi benn taalibe ku ne yaay xool yi nga bëgg nga joxe ko wala. yaay xool li nga li nga attan da nga sasoo ndax dañuy bañ gaañ ku ne ku ne yaa xam ne waxal li nga sasoo li nga attan nga sasoo waaye am na benn minimum boo xam ni bu dee étudiants yi am na ñu leen di laaj. wala ñi nga xam ne ñuy liggéey itam am na ñu leen laaj am na ñoo xam ne nag ñoom nee buñ leen laaj dara ñoom waaw nañ seen seen pas-pas. Mm-hmm. liggéey boobu yëpp donc kenn ci dara donc suñ mënee moo xam am na suñu mel mbokk taale boo xam ne moo ñu ay matelas ndax ci loolu lay yëngu. donc kooku mënoo ko sas. Mm-hmm. moom day xam xam na daal fi liggéey bi war a toll li ñu soxla xam na priorité bi mm-hmm. moom it mu dimbali ñu ci loolu am na ñeneen ñoo xam ne ci ci wàllu ay nag. xam mhm. ci wàllu ay wàllu affaire produit maraîchage ak yooyu donc ku ci nekk. ci li muy yëngu rek lay kii. Mhm. bu ñëwee ba foofu nag après ñu xool li nga xam ni moo war a jëm ci waañ bi ñu saytu ko. Mhm. waxtaan ci ak ñi nga xam ñoo nekk waa parcelle. ñoo nekk waa buur yi ak ñeneen ñi ku ci nekk ñu wax la ndax dañuy bañ moo am ay doublon ku ci nekk ñu wax la. ñun li ñu yéene. ci màggal bi ñoom ñu wax ñu seen i yéene. su boobaa ñu déggoo ci. waxtaan ci ak sëñ bi. ne ko nag xam naa fet euh, ren nii lañ ko fas yéene. bu ñëwee tamit. li ñu njëkk a def bu ñu ñëwee ba taxaw. Mhm. gis gis camion. Euh, bi nekk ci camion waaw mooy mhm. suñu camion. mooy def lekk waaw daanaka mooy def su mooy suñu camion garde manger. dañuy mhm. def lépp parce que pour bañ affaire yi tasaaroo. bu ñu ñëwee li ñu njëkk a def mooy dañuy ñëw diisoo ak yeneen jëwri yi yeneen yi. toog ak sëñ bi ne ko lii mooy suñu wàll ci màggal bi moom mu xool mu ne kon boog. maanaam waañ bi da indi seen ndugg ak seen lépp ne sëñ bi ñun lii mooy suñu àddiyee ci màgg voilà bu ñu ko indee nag mm-hmm. moom ci boppam ak yeneen jëwriñ ñi mu mm-hmm. daal di joxe ay tegtalam ne nii laa ko bëggee bëgg naa ngeen toll ci lii ci liim ci mbana bëgg naa lii lii lii ndax matee na ko mu daal di ci dugg waaye dañ ciy déggoo ñun ñëpp comme ça ñoom it ñu wax ñu naka la lan lañ indi ci ñaari fan lan lañ jot a def ndax do mën nañ fekk ñoom ñëw ñu indi ay naka yooyu ñu xam li fi ne li fi ne nag satisfaire. li mu mën a fan lay toll. ñii ñii ñu ngi juróomi mën a. añ bi. loolu añ kese euh, ak benn mën a boo xam ne dañ koy def mën a à part vermicelle. Mm-hmm. muy juróom benn mën a. Mm-hmm. Euh, guddi tamit. danañ defar vermicelle. Mm-hmm. danañ defar ñetti mën a ak ak euh, ñetti mën a tufe hmm? ak ay miche yi. léegi nit ñi dañuy. dañuy faral di dégg paaleen paaleen paaleen fii kese la wala penc mi yëpp. waaw ah, non euh, quartier bii moo tudd paaleen. waaw xam nga quartier traditionnel lu Touba la traditionnel est-ce que ay Baye Fall kese ñoo fi. ay Baye Fall kese ñoo fi parce que soo xoolee boo xoolee li fi nekk fii yëpp que sëñ Cheikh Baye Baye Góor mi fële. waa euh, kër sëñ Mbaor Fall yaa ngi fi daanaka quartier bi yëpp quartier Baye Fall bi ci sancu Touba fii la Baye Fall ko d'accord léegi yéen ak Mbacke. lii màggal kese la wala da ngeen koy def gàmmu da ngeen koy def yeneen yeneen yeneen màggal. waaw non euh, xam nga euh, sëñ Cheikh Khadim moom mooy organiser cant yi am stade Demba Diop premier mai. Mhm. di cant yu mag nga xam mooy daanaka mooy cant maam Cheikh Ibrahima Fall gën a rëy ci Dakar. Mhm. nga xam ne c'est des milliers de personnes yu ci stade Demba léegi nag gannaaw màggal gi euh, boobu suñu bés la euh, ak euh, kumte koor yi koor yi tam dañuy ñëw fi togg ay ndogu di ko yóbbu weeru koor bi yëpp weeru gi nag dafa am fii gàmmoo Xuru Mbàkke mi day gàmmoo Xuru Mbàkke ndax moom tamit chef de village ci Xuru Mbàkke donc dañ tam foofu tamit waaye terewul ñun tamit dañuy gàmmu Dakar ñi nga xam ne ñoo nekk Thiès tam dañuy gàmmu Thiès mhm. ak yëpp ci ndigalam yooyu dañ ko kii laylatul xadr tam dañ koy yëngu bés yi nga xam ni xam ni ba yi nga xam ne daal murid dañ koy yëngu yëpp dañ koy yëngu waaye fii moom màggal gi moom fii lañ koy ñu fii la ñuy daje am na solo a yàlla borom bi yàggal taxawaay bi jërëjëf merci ñu ngi leen jërëjëf ñu ngi leen jaajëfal jërëjëf Jotna Média ak TV kontaan na ci a jërëjëf kontaan nañu bu baax ci yow merci merci mën naa ñëw naa tëj ah. ami cher internet mbokki Jotna Média ak TV lii lañ leen indiloon tey fii ci kër sëñ Cheikh Khadim Fall lu jëm ci wàllu waañ bi donc euh, amoon na aussi yeneen waañ yu ñu jotoon a def xam naa dañ leen di bàyyi après ngeen saytu ko xool li ñu leen indiloon ci màggalu ren bi te di ñaan yàlla it ñu koy fekkee ay màggal yu bëree bëree bëri jërë ngeen jëf merci beaucoup.